اقرأ باسم ربك الذي خلق mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah daara internat Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké nekk fii ci Touba guy mbind feggoog hôpitalu Kër Serigne Niane Diop mu nekk internat di internat xale yi di jël góor ak jigéen ngir jàngal leen alxuraanul karim waaye ngir yar leen tàggat leen former leen nga fay fekk nag personnel boo xam ne daañu taxawu xale yi jàngal leen def lépp lu war ci ñoom tàggat leen yée leen ci àdduna waaye jàngal leen lu jëm seen wàllu xam-xam lu yaatu lool jàngal la ba nga mokkal alxuraanul karim am fa nag matière yu bëri di jàngale majlis rawatina arab français ak anglais xale yi mën faa jàngi ba amee fa ay certificat amaale fa diplôme bu jëm ci wàllu couturier di ñaw waaye tamit lii di karaté ceinture noire ci karaté ndax boobu lee sport dañ ko pratiquer ci biir internat boobu lee danañ fa jàngal xale bi lu jëm ci wàllu informatique ba mu am fa diplôme ngir la Cheikh Mouhamadou Bachir Niang ñuy jàngal tu tànk yi jardin ba ci niveau yi gën a kawe mu nekk internat bu am solo boo xam ne képp ku bëgg sa doom am njàng mucc ayib ba pare ñu yar ko jàngal ko xam-xam formé ko ci gaawal ñëw fii daara jooju nag ñu mën fa jële xam-xam bi yaatu lool jëm ci wàllu certificat arabe waaye diplôme informatique ceinture noire ci karaté waaye tamit diplôme ci wàllu ñaw ba tey daara ji di ñaw lépp lu jën ci wàllu blouse ci ñëw ay ñëw yu mucc ayib kon képp ku ci bëgg mën ngaa def sa commande daara ji ñawal na ko ngir nga am lu ci gën a wóor mën nga woote ci numéro téléphone bii daara internat Cheikh mu Mbacké nekk fii ci Touba guy mbind nekk ci wetu hôpitalu Kër Sëñ di ñaanal mbokk yëpp képp ku ci bëgg njàng mucc ayib taxaw nañ temm كلا لا تطعه واسجد وقل mbokki julit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu nuyoo ziar sëriñ tuba sëriñ muntaqa mbakke xalifa général kulu murit ñaanal ko fan wu gudd lool wu xànd ak wér-gu-yaram ziara mboolem kilifa yi diine yëpp waa daairatu minhajul abidin ci njiitul Serigne Cheikh Mbay ak Serigne Modou Mbay di kuréel gi lëkkale mboolem ñi jaar ci daaray Serigne Mor Mbay ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen ñooy yëgal mbokki jullit yi mbokki taalibe rawatina képp koo xameen si mos ngaa jaar ca daara ja wala ngay soppeeb al imam Serigne Mor Mbay liggéey liggéeyal alquran ñor la ni fos yéene nañoo amal ab liggéey ca daara ja ngir yeesal ko ba mu gën a méngoo ak jamono ngir gën a yëwénal nekkeenu donga ya ca daara ja liggéey boobu nag ñoo ngi ciy woo ñëpp di ci soñi ñëpp képp koo xamante ci liggéeyal l'islam te jaare ko ci alquran ak daara yitteel na la ñoo ngi la ciy woo képp koo xamante ci bëgg ci am lu la gën a leer wala nga bëgg ci tàbbal saw ñaq di nga mën a wootee ci numéro bii ngeen jàkkaar lool muy affiché seen kanam muy 77 730 71 19 77 730 71 19 képp ku ci wootee lépp loo bëgg a xam ci liggéey bi di nga ko xam loo ci tàbbalatem des na la ko defal ci liggéey bi mbokk yi liggéey baa ngi noonu daara jaa ngi noonu liggéeyal alquranu karim waa minhajul abidin di ñi nga xamante ni ñoo génnee ci daaray imam Serigne Mor Mbay ñoo ngi ci tàllal loxo ñëpp di fi woo ñëpp di fi soñu ñëpp di xamle ni liggéey ba liggéey jeex liggéeyal yàlla ci alquran ak daara ak ñooñ daara dara ëpp ko ci tuyaaba ngir darajee alquranu karim képp ku ci jàpp yàlla na la yàlla sàmm te aar la ci barkeb alquranu karim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala

moo def sahrul muharram muy weer wi nga xam ne moom la ñu nekk ñu di ko tuddee tam xarit muy weer wi nga xam ne moo ubbi weer yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ashurul xurum muy weer yi nga xam ne suñu borom daf leen warmaal noo ngi koy sant moom yàlla noo ngi seede tey wóolu tey dëggale amul benn buur bu yeeyoo ak jaamu jaamu ko mën jural njariñ ki koy jaamu ñàkk gaa jaamu mën a jur lor pour yàlla moom rek la amul kenn ku bokk ak moom ak ngi sayyidina muhammad ab jaamam la ndawam la waye moy sang bi nga xamne moy mooy sangu mbindeef yépp yalla julli ak salma nek ci mom no ki ñoyam ak i saxaabaam li fi guddi ak am yalla salatu nek ci mom mbokk yi li ñu war a fàttalante tey mooy fukki weer ak ñaar yi nga xam ne dafa jóge ci sunu dund ndax ñi ngi wan ginnaaw am at waaye dëgmal at mu bees mu war a jural jullit bi aw njàngat ndax at mu nekk fukki weer ak ñaar la kenn ku nekk ci ñun fukki weer ak ñaar manqué na ci dundam te duutu dellusiwaat mukk incha allah te ku mu ci ñu nit xamoo ndax da nga dundal fukki weer ak ñaar ci kanamam déet kon li ñu ci war mooy ñu gestu sunu ginnaaw li ñu ci farlu woon ci lu baax ñu ñaan yàlla mu nangul ñu ko te fulal ñu ko te làqal ñu ko foo xam ne ak yàq du ca yegg li ñu ci jàpp ay rëcc rëcc ñu tuubal ko yàlla te ñaan mu jéggal ñu ko waaye bu ñu ko jéggalee it mu soppil ñu ko aw yiw bindal ñu ko ci sunuy téere jëf yàlla ñu ko yàlla defal sayidna omar ibn alxataab daana wax ne xaasibu anfusakum xabla an tuxaasabu sax leen ci di régler seen bopp bala ngeen yobbu ci seeni bàmmeel di len fa réglé réglé sa bop nak moy sa so xeye bu sey bala nga tëdd li nga def ci lu bax xam nga ko li nga def ci lu dul non it xam nga ko li nga def ci lu bax nga am pas-pasu suma xeye mu yok li nga def ci ay retti retti nga tuup ko waye am pas-pasu bu ma xeye dutuma ci jaraat lolou moy réglé sa bop lolou la ko ci sax da nga dem ba say say fuk fuk ëpp say benn benn mbokk yi ñu tànn ñaari bayti Cheikhul Xadim bëgg ko waxtaan umdatu diini indana kalimatun arbaun min kalaami xayril bariya Cheikhul Xadim nee na kenoy diina jii di lislaam nee na ñeenti ponk la yoo xam ne ñoo yanu diine ji di lislaam maanaam ñeenti keno la ni keno yi jumaa ji yenoo xaddub xaddub jumaa ji noonu la keno yooyu di yenoo diine ji di lislaam mu ne umdatu diine indana kalimatun arbaun min kalaami xayril bariya nee na loola nag ñu ngi ko jële ci waxi gën ci mbindeef salawatullahi wasalaamu aleyh yonent yàlla muhammad bi ci njëkk dafa wax ne ittaqi subuhaat na ngeen di moytu lu leunt moy lo xamne ne xamoo ab atem ndax dafa dagan wala dafa haram biko ñaaral ñaareel wës na nga sax ci dëddu aduna wada ma lay ya'nika yaaniika te na nga sax ci lepp lu la amalul njariñ nga diko moytu ndax jaamu bi yalla bu mu mën doon lu ko amalul njariñ fi ci aduna du amal njariñ ci bir bambel way bu dekk bis ci du amal njariñ bi ko ñeenteel mu ne waamal la nabi niya lépp looy jëf ak lum mën a doon nanga jiital yéene ci jëf ji ndax yéene ci la jëf di baax waaye it ci la jëf di yàqoo ittaqi subuhat mooy bi njëkk na ngeen moytu lu lënt mooy loo xam ne xamoo àtte ba ndax yonent yàlla muhammad nettali na ko ci làmmiñu Nu'man ibnu Bashir lañ ko jëlee mu ne yonent yàlla muhammad nee na innal xalaala bayyinun wa innal xaraama bayyinun nee na rasulullahi nee na li dagan leer na naññ li xaraam it leer na naññ waaye nag lay problème ba mooy wa baynahuma umurun mustabihat diggante li xaraam ak li dagan dafa am ay mbir yu nekk ci seen biir yoo xam ne yu lënt la nga xam ne laa yaalamuhunna kasirun min annaas li ëpp ci nit ñi xamuñ ko waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñ ko mu wax la nag ana lu lënt loola nan nga koy moytoo mu ne fa ma fa ma ni taqa subahat faqad istabraa li diinihi wa ardih nee na képp koo xam ne xool nga loo xam ne dafa lënt nga moytu ko mbokk yi lu lënt mën nañ cee boole xew-xew bii nga xam ne xew dañ ndax fi mu ne nii ñu ngi ci jamonoy politique jamonoy élection ku ne gis ne suñu politiciens yi nga xam ne ñooy nganku nguur gi waxtu woo xam ne dem nañ ba élection dëgmal ñu jël ay alal di ko séddale nit ñi moo xam ceeb la moo xam dugub la moo xam diwlin la moo xam luy dem ci kër mbaa alal ji dem ci poos mbokk yi alal yooyu ci lënt la bokk ku ko mën a moytu nga moytu léeg-léeg danaa dégg ci nit ñi ñu naan kuñ jox al jëlal nga lekk ko bu bisu vote ya nga seet lal la neex nga def ko ndax seen alal donc lañ leen di jox waaw ah waye nak ñu bayyi xel na buñ la joxé seen alalit alal ji alali mbolo la té joxuñ leen ko won ngir ñu di ko ñi di xagnalé dañ leen ko joxon ngir ñu def ko ci soxlay askan bi ñu denc ko ba élection ñëw ñu di ko jël di sédd ñé ngir jënd leen buñ démé ba ci bisu vote ñu mën leen voter alu yoy mbokk yi lu mata koy tu la ndax ay xàq jàmbur lañ jël di ko jënd ñen ñi ku ko mën a moytu na ko moytu loola mooy alal ju lënt nañ ko moytu yonent yàlla Muhammad nee na képp koo xam ne fekk nga lu lënt nga moytu ko nee na setal nga sa diine setal nga sa der waaye nag waman waqaa fi subuhaati waqaa fi lxaram nee na koo xam ne dugg nga ci alal ju lënt nee na daanaka dugg nga ci dugg nga ci alal ju xaram mu joxe ci misaal ne ka raayi yara al ganama xawla al ximaam yuusiku ay yaxan fii nee dafa mel ni sàmm boo xam ne dafa indi ak juróom ba ci diggu toolu jàmbur mu di fa sàmm sàmm boobu buy xef rek jur gi rëcc dugg ci biir toolu jàmbur rool ko kon bu bëggee mucc ci ruur mbayum jàmbur ana nu muy def mooy day fexe ba sori tool ba nga xam ne gàtt bu rëcc it bala moo yegg ci tool mu mën mu mën ko dogale wàññi ko kon képp koo xam ne bëgg ngaa sori lu xaraam moytu lu lënt ndax képp koo xam ne yaa ngi xëy di dugg di lekk ci alal ju lënt rek incha allah ci lekk alal ju araam ci tege képp koo xam ne yaa ngi jógit di dugg ci lu lënt dugg ci lu moo ci tege boo bëggee sori lu xaraam nag nee na da ngay sori lu boo sori lënt rek sori sori lu xaraam mooy sàmm bi nga xam ne mi ngi ci diggu tool bi kooko buy xef rek jur gi rek ci dugg ci biir tool bi waaye nag bu soree toolu jàmbur dana xëy sàmm ba ngoon te ba soobee yàlla benn benn juróom du ci di dugg ci toolu jàmbur kon nag ku bëgg a sori lu xaram sori lu lépp kon mu ne wa man waqaa fi subuhaati waqaa fi lxaraami ka raaci yarxa alganama xawla alxima yuusiku an yaqaa fiihi mu teg ci ne alaa wa inna li kulli malikin xima wa inna xima allahi maxaarimuhu nee na buur bu mu mën a doon rek am na frontière boo xam ne bëggul kenn ku ca tàbbi waye neena frontière bi yàlla nak moy li haramal xaramal mbokk kon lu mata moytu mu tek ci na ala wa inna fil jasadi mudakha neena yaramu doomu adama amna ci ben benn ndawal bu nek ci bir wa in salahat salahal jasadu kullu neena na suuxu ndawal boobu nek ci bir yaramu doomu adama bu suuxoo baxé yaramu léppay bax waaye wa in fasadat fasadal jasadu kullu waaye suuxu ndawal wooy bu yàqoo yaram wa lépp yàqu ñu ne ko waaw suuxu ndawal wooy mooy ban mu ne ala wahiya al qalb mooy xool doomu adama mbokk yi xol lu tuute la ci biir cëri nit ki waaye moo cay cër boo xam ne bu baaxee lépp baax bu bonee lépp bon ndax li xol yéene rek la ay cër di jëf bu fekkee ne xol lu baax rek lay yéene mbokk yi cër lu baax rek lay def waaye bu fekkee ne xol safaan rek la yéene cër bi cër yi ca desi safaan rek la yéene ndax alxalbu kal maliki fil aadaai mahma yemil tamit bi lamtiraay Cheikhul Xadim nee na xol mooy conducteuru cër yi fu mu jàng jëm rek fa la cër yëpp di jàng jëm moo tax bu xol jàngee jëm ci lu baax cër yëpp dañuy jàng jëm ci baax waaye bu jàngee jëm ci safaan cër yëpp jàng jëm ci safaan moo tax suñ borom ba muy wax daf ne doom yi ak alal yii ngeen dajale ci àdduna duwul loo xam ne mën na leen a jariñ fa karam yàlla yow ma laa yanfau maalun wala banuun waaye nag illa man ata allah bi qalbin salim la fa nit di indi ci kanam yàlla tabaraka wa taala mu man ko faa jariñ dara mooy nit ki ñëw indi fa xol bu sell boo xam ne day mucc ci kiñaan mucc ci ngistal mucc ci rëy mucc ci puukaréew waaye nag mucc ci bañ sa mbokk jullit boo xam ne def la dara bépp xol boo xam ne ñëw na ci mucc ci mboolem bi xol xol boobee bu ñëwee ci kanam yàlla tabaaraka wa taala mooy xol bay tax kon mbokk yi bi ko ñaareel mooy wazhat nga dëddu àdduna mbokk yi àdduna ji ñu nekk kër la goo xam ne ab kaso la ci bépp jullit yonent yàlla muhammad nee na ad dunya sijnul mu'min nee na àdduna kasob jullit la waaye wa jannatul kaafir nee na ajana yéefar la jullit bi bu nekkee ci àdduna dañ koy tegi jafe-jafe di ko tegi natt di ko tegi métit di ko tegi coona mu di ko muñ muñ googee la mu ko war a jural ëllëg yomal xiyam mooy texe ak ngërëmal yàlla waaye yéefar bi nag day nekk ci àdduna du am benn gàllankoor du am benn coona di am li mu bëgg lépp waaye la muy li li muy bëgg lépp mu di ko amit ci àdduna ana lu mu koy jëri jural ëllëg yomal xiyam mooy texe di ko xam gu sax dàkk mu ci yàlla bu kon ñoom ñaar bokkuñu wàccuwaay moo tax Seydina Omar dugg na ci néeg yonent yàlla Muhammad salawaatullahi wa salaamu alayhi fekk ci biir néeg bi benn lal amu fi basangook romba jaan la am ci niñ koy ci niñ ko mën a misaale mu tëdd ca basanga ba yaram wi marqué yaram marqué ci basang gi bi Seydina Omar agsee yonent yàlla Muhammad jóg yaram wi marqué ci basang gi maanaam basang gi marqué ci yaram wi Seydina Omar ibn Xataab jooy yonent yàlla Muhammad ne ko maa yabkiika yaa Omar ana lan moo la jooyloo mu ne ko man de sama xel dafa dem ci buru kisra dem naa ba gis ñu nguuroo ma dem xaysara gis na buru xaysara di nguuroo nekk ci seen biir pale yu sedd guy yor seeni dag ñuy dox ci seen yitte liñ bëgg lépp jàppandi leen te ñoom ay yéefar lañu wedd yàlla yow ngay jaamu bi yàlla boo xam ne li yàlla bind ci kaw suuf lépp yaa ko ci gënal ba noppi mu di la natt tegi coono di tegi ñàkk di la qol si neeg bi ni mel dara neeku fi dul basanki qol ni mel ci sayaram bi yalla muhammad nak ya umar ولئك خوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا مونيكو نيو نيغي نيو تكلال بوكو نيو داخ نيوم اي نيت لا نيو خامي لا نيو ورا ام لب سوني بوروم داف لين كوي غاوي جوخ لين كو في لك ادنا بو الله بو نيو فاتو ديم بار ساق مبوغل مو ساق داك لا نفاي فك بكر ني ديك ديم سوارا يا الله waaye nag wa nahnu qawmun uqirat lana tayibatuna fi xayatuna dunia ñun aw nit lañ woo xam ne suñuy taraanga yàlla duñu ko jox ci àdduna daf ñu koy dencal ba ëllëg yowmal xiyaam bu ñu faatoo dem ci suñu biiri bàmmeel fekk fa taraanga di ko dund ba xëy dekk ñu tàbbal ñu aljanna bokkuñu ak ñoom mooy la alquran wax ne adhabtum tayibatukum fi xayatikum dunia wastamtaatum biha لكن لي تي داس موي فاليوم توجي زاونا عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بخير الحق وبما كنتم تفسقون يلا نيال بول تي نياي يلا يلا يلا موسال تي نياي موي نيغا خامن ايلك داني نييو سون بوروم نيلن يين داي لما لين اميلون تي تراغا ليب جوخنا لين كو تي ادنا نغي ليكو طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها لكن لي تي داس موي في موم امولين في دار دور مبغل مو تار مو خامن دا نين ورا فاي kon jullit bi ak yéefar bi looloo lañ wute jullit bi àdduna kaso la ci moom dañ ko ciy teg ay natt waaye bu faatoo bu demee ci biir bàmmeelam fala ak te xam di tàmbale yéefar bi nag addunaam mooy aljanaam bu àjj bu àjjana joojee jeexee nag bu duggee ci biir bàmmeelam kaso lay doon boo xam ne bu ca bu ca yeewoo rek sawara lay dem alias billah loolu suñu borom di wax yonent yàlla Muhammad ne ko laa yeexu yaxurannaka taqallubu alladina kafaru fil bilaad Gaya yi nga xamne dañu am possibilité di wër aduna fu nek ñi di fa wëndelu ci réew yi alal japp ni leen lépp jàpp leen bu leen ñe mukk bu leen ñe mukk ndax mataun as ndir lañu dund ci aduna di xew bu ñu faatoo suma waxum jahannam sawara so xamni sawara so ndak lay doon kon ñooñu mbokk yi mu ñoo ñe biko ñettel mooy wa dax maa lay sa yaxanika nga moytu lépp loo xam ne amuloo la njariñ ci àdduna yonent yàlla muhammad nee na min xusni islaamil mar'i tarkuhu maa laa yaxni dafa bokk ci liy rafetal islaami nit ki mooy lépp lu ko amulul njariñ ci àdduna mu bàyyi ko mbokk yi suñu dund yi ñu yore benn yoon rek lañ koy am bu jeexee ganeen dund moo ci topp goo xam ne xayaatul barsaq yee la mooy dund barsaq ndax ñaari façon dund rek am muy dund dunyawi ak xayaatul barsaq xayaatu dunyawi mooy dund gi ñu dund muy dund koo xam ne dañ cee war a lëggéeyal yàlla dañ cee war a jaamu yàlla dañ cee war a jéem a jege yàlla ngir dund la goo xam ne as ndiir lay doon ñu faatu dem ca sunuy bàmmeel door a dund nag dunduk barsaq te mbokk yi dunduk barsaq googee la ñu fay jariñoo mooy li ñu doon dund fii ci àdduna moo tax ku nekk ci àdduna war ngaa góorgóorlu di moytu loo xam ne amulu la njariñ mbokk yi danaa ko faral di wax lu bari lool lii ñuy tudde nouvelle technologie nga xam ne jamono ñu ko indil nga xam ne tey jii dañoo nekk ci jamono yu mondialisation buy àdduna jëpp benn ëtt lay xewe ca Australie da ngay toog fii ci Sénégal mën a jàkkaarloo moom en direct ci sa téléphone boo xam ne mu ngi ci sa biir poche wax lii ñuy tudde réseaux sociaux lu mën a lekk dundu doomu aadama la te du ko yëkk xoolal ci ñun rek tey boo toogoon tey jii ba sa correction jeex rek yow sa àdduna tukki feek amaatoo ko rek yow duutoo am jàmm boo ne woon dama la wutale ma connexion ñu dem ci boutique ñu ne boutique yi tëj na yow sa jàmm day jeex duutoo bokk ci nit ñi amoo connexion rek yow duutoo bokk ci nii ñi sama connexion bi dafa jeex damal wutale ma damal seet bitik sàngam nangam nangam bu fekkee ne wifi ngay connecté bu wifi bi euh, maanaam boo amee dérangement rek saa du tukki la du to bokk ci nit ñi sama wifi dafa am dérangement daal di gaaw euh, service clientèle bi boole ca gën soñ bi nañ ñëw defaral ma ko ndax da ngaa yàkkamti connecté parce que temps bi ngay def ci connexion bi dafay gàttal sa jamono mbokk yi réseaux sociaux yi nañu seet li ñu ciy jariñ ñu jëfandikoo ko li ñu ci amul lu njariñ ñu bàyyi ko lu ko mooy dana lekk suñu dund te bu ñu fàttoo duñ fekk duñ fekk dara ci suñu bàmmeel kon nag waa dax maa lay si jaxam yëg li ñu amul njariñ mbokk nañ ko bay bi ko ñeenteel mooy waxama lënd bind ya jëf ju nekk ci yéene rek lay baax yonent yàlla Muhammad nee na innamal amalu binniyaati wa innama li kulli imriin maa nawaa nee na jëf yi ci yéene yi lay baaxe waaye ci la yàqoo mbokk gàddaay ci yoonu yàlla ngir rawale sa diine xameesul ci suuf ci kaw suuf jëf ju ko gën a rëy waaye saxaaba yi ba ñu ànd ak yonent yàlla muhammad gàddaay jóge makka dem madinatul munawara ngir rawale seen diine yonent yàlla muhammad suñ borom daf koo wax ne ko sa saxaaba yi am na ci ñoo xam ne yàlla taxu leen a gàddaay dañu doon labat jigéen labat ga eggul jigéen nga gàddaay nañu gàddaay topp ko am na ci ñoo xam ne dañu doon commerce yëg nañ ne Madina la gën a doxe nga gàddaay ñu topp la gàddaay ànd ak yow waaye seenu commerce la tax see la tax a gàddaay ak ni gàddaay amee doole ci lislaam rasulullahi woo ay saxaabam ba ñëw ba ñëw mu ne leen ah man kaanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasul koo xam ne sa gàddaay gi benn pas-pas nga ci am muy dimbale yàlla akub yonenteem ak rawale sa diine daa ci am pay bu yàlla da nga am sama ngërëm man mii di Muhammad waaye nag boo mën kaanat hijratuhu li dunyan yusibuha aw imraatin yankihuha kooku fa hijratuhu ila ma hajara ilay koo xam ne sa gàddaay gi àggale sam labat moo tax mbaa doxal sam commerce na nga xam ne la tax ngay gàddaay dong moom ngay am ci gàddaay ak lu jëf ji rëy rek moo tax mbokk yi jëf lum rafet rafet ci bëti nit ñi ak lum rëy rëy ci bëti nit ñi suñ borom xoolut loola la muy xool mooy kii jëf lam fas ci xolam ci jëf ji ndax nit ñi moom kaw gi rek lañ mën a àtte waaye mënuñu àtte biir gi ci biir moom alamul xuyub rek ko xam yàlla tabaraka wa taala waaye nit ñi nag mën nañu àtte kaw gi moo tax nag lu kaw gi rafet rafet rafet na ko biir ka dàq laa tax su dann gayra rabbi tawli fi kulli saayin maa kulli qawli cheikhul xadim nee na jëf jum mën a doon muy ak jaamu yàlla wax jum mana do doon muy ak jaamu yalla neena bu ci jublu kenn kudul dul borom may tamu yalla tabaraka kota taala is rabbuna li khalqi aqrabu min habli waridihim fa za nasu suki yi jëf koo ci jublu kudul dul jëmm yàlla rek yak nga jëf jëf ndax kenn ko am sa pay ku dul yàlla amut kenn nit ko am sa pay ku dul yàlla amut moo tax li ci jëw ci jublu jëmm yalla yalla yalla saxal ñu siiw yalla yalla saxal ñu ci mustaqim at mi ñu genn mbokk lu luñ ci def ci lu baax yàlla ñu ko yàlla nangu bu ñu ko nangu nangulee yàlla ñu ko fulal bu ñu ko fulalee it yàlla ñu ko bindal ci su suñuy téere jëf te musal ko ci jàng waaye luñ ci def ci ay rëcc rëcc suñu borom xam na ko ñu nit xam nañ yàlla ñu ko yàlla jéggal jéggal ñu suñu rëcc rëcc waaye nag soppal ñu ko ay yiw soppar ñul ñu ko ay yiw bindal ñu ko ci suñuy téere jëf te may ñu fan yu gudd yoo xam ne lépp dañ koy jeexal ci lislaam yaxfirullahu li wa lakum wa li saa'iril muslimin amin mbokki julit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu nuyoo ziar sëriñ tuba sëriñ muntaqa mbakke xalifa général kulu murit ñaanal ko fan wu gudd lool wu xand ak wér-gu-yaram ziara mboolem kilifay diine yëpp waa daairatu minhajul abidin ci njiitul Serigne Cheikh Mbay ak Serigne Modou Mbay di kuréel gi lëkkale mboolem ñi jaar ci yi Serigne moor Mbay ginnaaw bu ñu leen nuyoo jaar leen ñooy yëgal mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina képp koo xameen si mos ngaa jaar ca daara ja wala ngay soppeeb al imam Serigne Mor Mbay wala liggéey alquran ñor la ni fos yéene nañoo amal ab liggéey ca daara ja ngir yeesal ko ba mu gën a méngoo ak jamono ngir gën a yéwénal nekkeenu donga ya ca daara ja liggéey woo ñëpp da ci soññi ñëpp képp koo xam ne ci liggéeyal l'islam te jaare ko ci alquran ak daara yitteel na la ñoo ngi la ciy woo képp koo xam ne ci bëgg nga ci am lu la gën a leer wala nga bëgg ci tàbbal saw ñaq di nga mën a wootee ci numéro bii ngeen jàkkaar lool muy affiché seen kanam muy 77 730 71 19 77 730 71 19 képp ku ci woote lépp loo bëgg xam ci liggéey bi di ko xam loo ci tàbbalatem des na la ko defal ci liggéey bi mbokk yi liggéey baa ngi noonu daara jaa ngi noonu liggéeyal alquranu karim waa minhajul abidin di ñi nga xamante ni ñoo génnee ci daaray imam Serigne Mor Mbay ñoo ngi ci tàllal loxo ñëpp di fi woo ñëpp di fi soñu ñëpp di xamle ni liggéey ba liggéey jeex liggéeyal yàlla ci alquran ak daara ak ñooñ daara dara ëpp ko ci tuyaaba ngir daraje alquranu karim képp ku ci jàpp yàlla na la yàlla sàmm te aar la ci barkeem alquranu karim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala taala wa barakaatuhu daara internat Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké nekk fii ci Touba. daara la joo xam ne dañu ko taxawal ngir jàngale alquran ak yar jullit bi. daara ji fu lay jàngal yar la formé la yee la. boo xam ne dafa bootaale ab sardin ñu di ko wax rawdatu atfal islaamiya soxna rahmatullahi sow mu am alquran ak école boo xam ne ci dafa làmboo arabe français ak anglais waaye amaale tam ab majlis mooy fu ñuy tërloo téere xam-xam yi naka noonu tim amaale dañuy tuddee salle de karatéka boo xam ne xale yi góor yi ñoom ñu ci tàggatu bi si ñu jàngut amaa la tim salle informatique boo xam ne si tim kasdalika góor ñi ñoom ñoo si tàggatu ak jigéen ñi naka noonu ti mu amaale ab atelier ñaw atelier bi nag euh, composé ñetti anam dalay jàngal ñaw jàngal ay ràbb napp ak ay dorop mais daf lay jàngal tim mu ñuy defaree ay madaar ay eau de javel ak saabu ak sax nu ñuy defaree nu ñuy defaree zi nga xam ne xale bi bu duggee di jàng si day inscrire wu su ñu ko jëlee mu commencé jàng diiran li mu fi def muy cinq ans yi nga xam ne fi def day boole jàng alquran bi ak jàngale franco arabe ak anglais bi bu dee jigéen mu jàng ñaw. yeneen yi ci topp bu dee góor a mu jàng karaté ak informatique loolu lépp nag xale bi nga koy jàng ci durant cinq ans booy moo ko xankarim day tombé nga am certificat franco arabe am diplôme ci wàllu ñaw am ceinture noire ci karaté am sa ci anglais am diplôme ci wàllu informatique ndax informatique dafa nekk xarala boo xam ne euh, dafa gën a avancé àdduna bi doxin àdduna bi dafa gën a yombal gën a taw feexal lépp loo xam ne nit da koy soxla léegi mën naa ne xarala yu bees yi bu ko manee dafay gën a dimbali baax baax ci dundam. daara ji di tax mu opté pour jàngal xale jigéen ñi ñaw dafa gis ne xale jigéen ñi ñu bari ci ñoom bu ñu nekkee ci daara dañuy ñëw ab ak aas bu xaw a mage wala léegi sax ñu ñëw wàcc rek ñu yeewi leen ñu dem ñibbi ñu bàyyi daal dem sëyi wala ñu dem ñibbi bu ñu demee nag du ñu mën a jariñu seen bopp lu bari seen diine lu ñu xam lu bari. waaye nag seen njàng bënnut agut bañ mën a toog di jàngale léegi nag bu boobaa bu ñu jàngee ñaw man ko bu ñu génnee dañuy benn benn dañuy ber seen atelier seen kër wala ñu dem di jaa di ñaw ñu di leen fay comme ki nga xam ñaar ñi nga xam ne ñoo njëkk jàngale fii ñaw ñoom ay jigéen lañ ñooy jàngal jigéen te ñooñu dañu leen formé woon ci seen ndaw ñuy ñaw ñu di leen fay ñu ciy dund di ci mën a jëriñ seen bopp jëriñ seen njaboot. loolu nag ngir préparer xale bi bu génnee mën a nekk ku ku mën a jëriñ boppam jëriñ fameem mais jëriñ en même temps jëriñ réewam noonu nga xam ne nag noonu ñu yittewoo ndaw li noonu la amaale dem ay activité mooy commission yoo xam ñoom ñooy saytu mboolem liggéeyu daara ji ci biir ak bitti naka noonu di amaale gouvernement scolaire am président ministre am député euh, am ëttu attikaay tribunal nga xam ne bépp xale bu fi nekk yi nga xam ne dañ koy tere ci daar ji su ko defee te mu tollok as bi ñu ne moom la tribunal dañ fay yob até la bu jaré sanction ñu tek la sanction yo xamné ne fay dellu ci ligéy daal ci juróomi kat alquran ñi ngi fi ñetti jàngalekatu français mi ngi fi ñaari jàngalekatu anglais mi ngi fi ñeenti jàngalekatu arab ñi ngi fi ak benn jàngalekatu karaté ak benn katu informatique ak benn jàngalekatu li nga xamné mom moy ñaw ak benn jàngalekatu rab ràbb ay napp drop loolu moo composé daara ji daara ji am na ci xale yoo xam ne fi lañ mokkale ñu ngi continuer di jàng ci école bi euh, di jàngaale ñeen ñoom sax mën nañu ñaw bu dee ci côté jigéen ñi mën nañu ñaw mën na nañu ràbb ay napp mën nañu ràbb drop ca teewul weer dañ leen fay ñuy xëy di jàngale ci daara ji te yi ngeen gis xale yi di ko sol ci daara ji yu góor ak jigéen yëpp donc daara yu jigéen ñoom ñoo ko ñëw ñoom ñoo ko ñëw kon mi ngi lancé waale képp bépp daara boo xam ne bëgg na defar tëri boo xam ne si moom la xale yi di sol moo xam benn la wala ñaar wala ñett moo xam kimono karaté la moo xam tenue de travail la yëpp atelier bi nekk ci biir daf koy ñëw. daara ji tam ubbi na ab centre centre bi nag li tax mu ubbi ko euh, ñaari mbir moo ko waral mooy pour jéem a daara ji lépp lu mu bëggal boppam ci wàllu financement mu mën koo di ko jël di ko defal boppam. depuis bi mu tàmbalee ci année deux mille vingt bi janvier deux Eh, nga xam ne moom moo ñëw yëpp commandes yi booy xool fi mu ni ëppagu na juróom-ñetti fukki commande yoo si am daara ji am na ko ci depuis ñaari at yi muy 2021 ak 2022 bëri na ci réalisation yu bëri yu mu def ndax daara ji yi ñëw atelier bi tax na eh, courant bi nga xam ne daf léeg-léeg dara ñëw di nekk jafe-jafe ci fay ko defar ay réalisation yu bëree bëri ci daara yoo xam ne si mi ngi jógee ci atelier ñëw boobu ñi liggéey ci atelier bi eh, ñaw bi ñaari xaaj lañ benn bi ci daara ji lañu jàngi ñëw ba man bu ci des ay employé dañ leen jël ñu di leen fay ñum ñuy continuer jàppale daara ji pour li mu li muy am ci ay commande mu mën a permettre pour mën ko pour mën ko liggéey ci liggéey bu mucc ayib. daara ji nag am na ay projet yu am solo yoo xam ne si tim bëgg na di ko lancer ñëpp jàppale ko ci mooy am na euh, barab bu yaatu fii ci euh, sow penku bi ci côté Lansar boo xam ne li mébétam mooy tabax ko mu nekk euh, immeuble boo xam ne si dafay làmboo composé mbooleem li am ci daara ji mooy barabu alquran ak loo xam ne si day jàng école lay doon ak tim salle de informatique ak atelier de ñaw ak salle de karatéka boo xam ne yëpp day combo si daara ji bu ko képp ku fi nekk dangay ngay mën a doxal sa liggéey boobu yëpp sa njàng xam-xam boobu yëpp da nga mën a def ci cinq yi ngir mën a jëriñu jëriñ sa réew mais jëriñ sa sa famille alhamdulilah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.